ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من الحمد لله البديع الأكرم العالمين الحمد لله soxna may maamatu Mbàkke bintu Seyxul Xadim ci daayiratu asaabul jannati bi nga xam ne mooy seetal jumaay Tuubaa ci bàyyi sëriñ bi soobee bu suuf woon ko ci xilaaf ak Cheikh Saalihu Mbàkke nu ànd ak sëriñ bu sama amasta ak sëriñ Babacar bu nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ñëw fii kër soxna may ni ñu ko baaxoo defee at mu jot bu ñu agsi ci waxtu yi nga xam ne ci li ñuy dundal laylatul xadri daayira bi nag ci kilifteeku Baye Serigne Bousso yu Bousso yàgg koo ànd ak soxna may ci ci léppam moo tax bi nga xamee ne yàlla dogal na bàyyi koo na njaboot gi ki ne ci bopp bi Serigne Babacar Bousso ak ñi ko àndal ñëpp tànk yooyu nga xam ne Baye Serigne da ko doon ànd ak daayira bi dañ koo gën yokk waaye wàññiwul ci dara moo tax saa bu ñu agsee ci waxtu wi ñu àndandoo ak Serigne Abdou Lahad ñu ñëw comme ni mu ko waxee woon rek li nga xam ne moom la daayiratu Ashaabul Jannati di liggéey ci jumaa ji di ko setal di joxe seen addiya ngir laylatul xadri gi nga xam ne soxna may Maymunatu Mbàkke mi ngi koy dundal ci ndigalu Sayxul Xadiim di ci liggéeyale Sëriñ Tuubaa daayira bi ànd ko ak moom loolee nag di lu yàgg loo xam ne ba léegi nii daayira bi waxtu wu nekk ak soxna yi taxawaay yu am solo lañ ciy taxaw ngir dundalee ko bi kon sëriñ Abdou laat mi ngi sant soxna sëriñ Abdou Abdou Mbàkke bu baax ak soxna astu mi nga xam ne moom lañu fekk si ndax taxawaay yi nga xam ne seeni waajur daanañ ko taxaw xambalee ko soxna may munatu Mbàkke jaar ci soxna baali taxawaay yooya sëriñ Abdou Lahad mi ngi wax ne ñoom njaboot gi wàññiwuñ ci dara dañ koo gën a yokk ndax fépp foo xam ne soxna Baali daana fa jaar ak Baye Sëriñ te buñ ne Baye Sëriñ mooy daayira bi rek ñi ngi fay jaar ak moom muy guddi muy bëccëg waxtu wu nekk rek seeni ndaw ak seeni eh, maslaa dana jaar ci ñoom di ñëw ci Baye Sëriñ loole nag kon fàttewuñ ci dara moo tax bi nga xamee ne yàlla dogal na daayira bii ni ma ko waxee woon léegi taxawaay la boo xam ne bay sëriñ bi la ko sëriñ Saaliw Mbàkke digaloon ne ko dama bëggoon alxames ju jot ñu buub jumaa ji ba mu set ñu raxas ko boobee nag yàlla dafa dogal nee na bàyyi sëriñ nee na yàlla dafa dogal soxna may xéewal yi mu daa toggal sëriñ Saaliw jataay booba xéewal yi dafa faa fekk bàyyi sëriñ sëriñ Saliou ne ko ndab lii de soxna may moo ma ko yónnee waaye liggéey bi ngeen tàmbali dama bëgg nga jël ko nga dem fee ngeen tàmbali ci seen xéewali ëllëg loolu soxna may moo ko wax soxna sëriñ saali moo ko wax ci ndab loo xam ne soxna may moo ko indiloon sëriñ Saliou bu jox ko daayira bi keroog la bàyyi sëriñ wax ne fasaaleel naa ci képp koo xam ne rek am nga yéene ci liggéey bi kon sëriñ Cheikh Abdou ak soxna Astou na ngeen xam ne mbooloo mi ñëw fii di daayiratu asaabul jannati bari na foo xam ne ñi ngi lañ fay séentu bari na loo xam ne ñoom amuñ jot ñi ngi koy taxawee waaye nag jëmmi xër gi nga xam ne moom lañ xër ci kër gi seen jawrin mooy bàyyi sëriñ busoo bi busoo nàmpataloon leen fa te xam ne luñ yëkkati bu bu ne acca ñu topp ci ginnaawam lii moo tax waxtu wu nekk joxoñ gi mu leen ko joxoñoon moo tax waxtu wu nekk seen xol ak seen pëstef di gën a jëm si ci kër gi nga xam ne kilifa yi nga xam ne ñoo ko ànd ak ñoom sax soxna yi seen bëgg lu baax waxtu wu nekk buñ duggee ci koor gi ñoom ñooy soññee ne addee soxna may ji kañ lañ koy yóbbu kon am na njiite lool ci kër gi kon sëriñ Cheikh Abdou ak soxna Astu sëñ Abdoulaat nee na ngeen ñaanal mbooloo mi bu baax ndax ñu bëgg sëriñ Touba lañ ay jàmbaar lañ lool ñu am yéene liggéeyal sëriñ bi lañ ndax ay mag lañ de waaye duñ noppalu koo ci gis bu alxamis jotee du am jàmm dana xëy si jumaa ji dana ko bale ba mu set mu raxas ko làmb àddiyaam joxe ngir sëriñ tubaa te lépp loo xamante ni lu baax la nga séen leen ji ñoom soxna yi kon na ngeen xam ne alal alali sëriñ tubaa lañ yoo xam ne buntu kër Serigne Touba yeeg lañu ñu waaye nag fii moom da cee rawati sëriñ Babacar nag ci lamiñu sëriñ Abdou Lahad nee na mi ngi leen di nuyu bu baax ndax xam na ne yàlla dogal na nekku fi waaye jëflante yéen a jëflante ak njaboot gi ak daayira bi lépp mu ngi koy yëg te it dara loo xam ne lu ci wàññiku la gisu ko lépp rek tànki kanam la kon ñu ngi ñaan sun borom subhaanahu wa tànk yi nga xam ne moom lañ euh, bàyyi ba ñëw fii fekk leen fi te waxtu wu nekk saa buñ ñëwee luy dolliku rek lañ fi fekk luy dolliku rek lañ fi fekk yàlla na suñ borom gën leen a sàmm gën leen aar gën leen a ba liggéey bi nga xam ne moom la soxna may bàyyee woon soxna Bali mu taaw ko fukki loxoom ak juróom yéen it bi mu agsee ci yéen wàññiwu leen ci dara lépp lu soxna Bali daan def bu daa benn yokk ngeen ko ba ba fukk kon yàlla na leen yàlla sàmm te aar leen te suturaal leen ak mboolem ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci liggéey bi ak mboolem fu ab jullit mën a nekk ak mboolem fu ab murid mën a nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na asalaamaaleykum wa barakaatu nee na mi ngi nuyu sëriñ Abdou Lahad Bousso ak sa bokk yu baax yi nga àndal nee na di la yóbbante ab nuyoo ci sëriñ Babacar nee na lu matut ay bis rekk woote na na di nemmeeku ak di wax ne waa kër gaa ngi waaj ñoo ngi ñëw nee na nuyoo boobu mi ngi koy def ci turu Soxna Astou ci turu sëñ Modou Mahfouz ak mboolem nag kuy turandoo soxna May ak njaboot nee na di amaat mbégte rek ci di leen dalal fii ci seen kër mbatt moo xam ne nag lu baree bari sabab na ko diggante soxna Maymuna ak Baye Serigne moo ci jiitu ndax léppam la woon mu doyloo woon ko rafetaloon pas-pasam rafetlu woon pas-pasam fonkoon koyit lool mooy Baye sëriñ ni mu defoon soxna May waaye nag bi soxna si làqoo nu raw noonee la defoon soxna Bali seen diggante daa dem ba àgg foo xam ne yéeme woon na lool ca loolee ak baaxam rekk la woon nee na loolee nag yéen ñii di njaboot gi dangeen ngeen koo sàmm fonk ko xam ko ba noppi jàpp ko nee na loolu moo sabab seen tànk yi te fii kat daayira bu ne dana fi dikk waaye borom mbaar mii nag jàpp naa ne daayira jumaa ji benn daayira du ko gënal rawatina boo xamee ne bañ koy sos doonoon na ca dara moo tax seenu dig ñu fonk ko fii nee na loolu mooy sabab teewaayam fii mooy sabab it teewaayub ñu baax ñii ñëpp di wetti li soxnaasu di leen ñaanal yàlla ngeen yàgg koo def ndax li gën a yéeme te loolu kat suñu borom da koo defal soxna si mooy ay bokki boppam ñoo ko nangul ba noppi ñëw ànd ak moom liggéeyub sëñ bi ndax kenn ku ne ci yéen ñii mënoon ngaa toog sa kër nangu daay bi te da lew doom kon lii bu ngeen ko defee day tegtalewaat seen pas-pas seen fonk kóllëre ak seenu jàpp nag sëñ Touba xam ne bis bii bis bu sëñ Touba nangu la nee na du ay waxam waxi ki ko daan def la muy soxna may wax na ko budul benn wax na ko budul ñaar te loolu itam ma nga jóge woon ci la ko sëñ Fallou waxoon ne ko danga dem ba di ci rey ay gëléem ba naga ne liñ ci rey ci ay gëléem ak nag kenn xamul nu mu toll kon bis bu Sëriñ Tuubaa nangu la muy guddi gi nga xam ne moo gën ci guddi yi guddi goo xam ne it alxuraan moo ko wax kon képp ku ci def rek ku yàlla baaxe nga mu ne waxoon naa ko démb ak bërki démb danaa ko waxaat tey jataayam bii du jataayub soxna Sude du jataayub soxna Bali de jataayub sëriñ Touba la fii kër sëñ Touba la nekk gi ñu fi nekk dañ leen fee nekkal rek bu ngeen xoolee fii ñi wër soxna su nekk ak moom kenn ku ne genn ci genn këri sëñ Touba yi la jóge laxasaayu ñëw di liggéeyal sëñ Touba fii yéen ñi nekk ci loolu rek lañ leen xam loolee dong it lañ ko jàppe kon ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm di feddali kóllëre gi di leen xamal ne na soxna Bally defoon Baye Serigne nu ko raw lañ leen fas yéene def te du jafe ndax seqoon nañ loolu démb tey soog a ñëw liggéeyal sëñ bi ca tubaab bi ci dëkk bi yëpp ñoo yéen ñoo koy ànd buñ dajawaatee rek foog naa day yomb bërki démb ba ñuy tujji jumaa ji ca yaman sëñ Abdou lépp yaa ko jiite woon jàppandal ko ànd ak waa xidma yi ñëw fa lañ fa war a def lépp nga xam ne sa fa nga def ko kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne daal seen kër ngeen tàbbi seen kër woon démb ak barki démb tey gii nag la rawati sunu xol sedd na guy di leen massawu nag ci coono yi ndax yàgg ngeen fi jamono ji tàng na koor gi métti na te ñi sant bu sa bari na ci ñoom nee na moo tax xam naa ne ngeen jéggal dara ba ñu cee topp ndax bu soobee bu mbar jërëjëf kon ñu ñu xam rek ne daayira bii sëñ Abdou Lahad soxna su nee na lii mu lay bëgg a wax nag moo moo ko bàyyi sëriñ a ko moom ci fi bay sëriñ sa yoon nekku ci ba nga koy gàntal nee na dana yónneewaat lam fa daan yónnee muy nag wa ak lam war a àndal ngeen toggal ko bàyyi sëriñ ca kër ga joxal ko ko waa daayira bi moom da ko toggaloo yóbbu kër googee moom kër soxna Maya mooy kër soxna May fii mooy kër Baye sëriñ nee na nga dimbale ko defal ko sëñ Bas kon ndigal laa ngi noonu déedéet waa daayira bee ko moom <laughs> jërë ngeen jëf kon sëriñ bi ñaan rek ngeen ñaan ajo yi faju rek Cheikh Abdou nag daa am lu muy ber xam naa ne neexut ba neexut waaye xam naa ne xejj nañ ci moom muy muy magam ñii nee ne daal ñii maamam yi da leen di sant waxtu wu ne ndax nee na jëlale na bokk gi ak taxawaay bi waaye xam ngeen xam ne kër gi seen kër ngeen takkaat seenu laxasaay te liggéeyal soxna may ba am ngërëmam lëggéeyal soxna baal Bali toppaat soxna astu mel ne xàmmeewu leen ko ak soxna Bali ak soxna may soxna sëñ Cheikh Abdou nee na loolu lu lu ko lu mu gëm la tam ñor ko te dafa àgg ci xolam ba ci waaw ba ci soxna nday mii nga xam ne moom moom ni mu mel ci kër gi sax li leen yàlla boole waaye teewut moom li mu doon bëgg bëgg soxna Bali daa mel ne soxna astoo gën a xeej ci moom ci ci cofeel ak ñewent fu mu jëm ñoo koy ànd kon nag sëñ Cheikh Abdou nee na teewaay bi rafet na ci moom lool nee na mi ngi leen di ñaan yàlla na leen yàlla fay yàlla leen soxna may taxawu yàlla bu ngeen gis lenn lu leen naqari ci àdduna ci barkeem Serigne Touba yéen waa daayira bi ñëpp nañ maase tàllal euh, su ko defee sëriñ bi ñaan